هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن صوم وطاعة للرحمن روحانية يومك غير والوعد باب الريان والليالي فيها الخير يا هلا بك يا رمضان يا هلا بك يا رمضان جينا نبارك للحلوين من زعلنا مسموحين خير وبركة مرتاحين والحبايب مجتمعين صوم وطاعة للرحمن هل هلالك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن صوم وطاعة للرحمن روحانية يومك غير والوعد باب الريان والليالي فيها الخير يا هلا بك يا رمضان يا هلا بك يا رمضان جينا نبارك للحلوين من زعلنا مسموحين خير Ayo, Sofi lah de bu ma ko yàggee rek ma rëcc lay. waaw jam. yaa ci jàmm. maa ngi sant naka nga def waaw Papa gaaw ngaa nelaw de. ah waaye tamit ni nga yemmit na léegi de mën ngaa nii mën ngaa yeb daaw Jam, de. man Papa dama laa soxla woon. mbaa jàmm. jàmm rek kay. waaw xam si koor gi. waaye baax na bu yaru. billaahi wallaahi watallaahi jinn dina la si mbedd ah xale yoo xam ne seen baay yarul leen foog ne war naa romb fii du dugg sama kër ñu naan ma Mor Kankan ah lan mooy Mor Kankan yéen xay waa baax na yow doo doo doo Moustapha Ndaw yow xaaminaa la xaaminaa la yàgg Babacar Wilane pour la. papa bilan pour lépp luy jëm ci ravitaillement koor gi papa. waaw yow nag Sophie nag yow tamit nag man daal sa jonge gii man daal yëm na ma Sophie yow lu jëm ci ravitaillement koor. yaay taawu kër gi yaa ngi ci kër gi yàgg naa laa ko wóolu naa la ci doo ko defal sa bopp rek nga dem xooloo ci ànd ak aasi. question de wóolu dañ koy waxtaanee kese xanaa waxoo ne ñoo bokk. duñ ñoo bokk defal nga ne ma lii la ma jox la nga dem jëndi. papa defuñu def bilan papa. soo fi dem bilan wax papa ma bind. bilan comme nan. papa lépp luy jëm si koor gi rek ñu ñëpp ñu waxtaanee ko. bu xonq bi. ak maa xam li ci rey sama bopp rek abonnement ci Mère Fane may nee loxo baax na da ngeen di rek billahi bu leen seen bàyyi yarul man dinaa leen yar dinaa leen yar ah mos naa koo gis bu seen bu ni man ngeen Mor lan Mor man man koy xoolal rek dox rek lay def dox rek lay def. tous les chefs ko mën defal man ngaa may na loxo sa loxo bi may na papa arara. papa presaya. presaya après nga def bisaab naturel bisaab naturel bi segg bam bax baxal bam ñor bobu naturel bi. da meew bu ñu ko fàtte. waaw meew ak yoyu moo tax man la yaangi ni ko baax na wóolu naa la sama xarit nga waaw kay loolu de ay Sophie ay waay Sophie waaye ay bu xonk bi de moom la ci bari moom. xoos bu xonq bi na ci bari de ah, waaw. chef yi xaalis bi nga ma envoyé mu bari na lii pour lan la. papa li ma la naan bilan bilan dama lay toon gis nga mag aas waxtaan nañ ba pare ginnaaw bi ñu jotee suñu bourse ba pare dañoo ne woon jënd nañ suñu accessoire ba pare la moo tax mënuñoo jàppale suñu papa comme que bi ñu nekkee primaire ba léegi yaa ñuy fayal papa ñu xool rek nan la ñuy def pour jàppale la si kër gi loolu rek la papa. Ah, xam nga wax dëgg fa yàlla lii de mosuma leen koo sas. te Sophie ay xale yu jigéen ngeen seen bourse bii moom ngeen yaakaar ak li ma leen jox ko néew lii ngeen ma envoyé quatre-vingt mille lii xajoon na ci yéen korité ngi ñëw kenn ku ne mën ngaa def sa dara waaye nag Sophie sant naa la de lii de mooy wane ni bi nga fi nekkee ma ne la veillé ci aasi xool ko yaa ngi koy doxal lii nag dinaa ko téye. musuma estati xaw ma whatsapp de mais naa ko estati wut whatsapp estati ko dëkk bi gis ko barki rusul laay bind ci mes fafa mes enfants <laughs> le bébé Sophie et le bébé Asi ils ont cotisé pour donner ses papas la <laughs> papa dégg fanaan <laughs> barki yàlla sama xol seet na si yéen nag barki alxuraanu karim sama xol seet na si yow yàlla na la yàlla sàmm yàlla jàppale la xam nga ni man naa ko koor ko ne kër gi dara du fi manqué waaye nag dinaa la jox xaalis insha allah nga def ko xaalis bii maa koy requérir def ko sama ron la su faatu njëkk fa jël ko quatre vingt mille nga fa. <laughs> sama yaay xanaa dina ñëw suba nag. ah woon naa ko téléphone ne dina ñëw di dina ñëw dina xaw ma ndax suba waaye dina ñëw de waaye maa la ko ñaan sa yaay bu mu jege ci. ah. tous ko ah si nag moom dimbali ci bàyyi ko seggum kafe. kon maa meilleur. yaa ma yaa ëpp doole. maa gën a féete. Enggak, yo ini gua enggak ada lah, mau ada aku loh. Apa aku dulu? <laughs> Beda kali gue beda kali yang makasih. <laughs> Falan, cin di dalam dia klub. Meto kusak dulu Firir, nembek, kie bujen. Mam deux journées tebel apre kie bujen. Digante bi lo oh, ci ruux baax na. Vermicelle, spaghetti, cie bujen ñew. ndambem loo wax rek mais deux sources. waaye bëgg nga sauce papa. waaw sauce de ci la bokk wax dëgg yàlla kontaan naa ci yow de jërëjëf yàlla na la yàlla sàmm. jërëjëf. wallaahi réccu ma li ma tuddee sama yaay de kii alhamdulilahi alamin su fi muy de barke karim mais nag naa ko mu génn na ko de yàlla ko yàlla sàmm jar naa nelaw ma kii de bu la yee damay rey yoru may nelaw ah, alhamdulilah مرتاحين waxtaan tey jàmm na rek ak li xale yi toog ndax wax dëgg fa yàlla sag ñëw dégganti nañ ci waaye démb rek maa ngi toog di ma la laaj ndax man ko woote nga nag comme que yegsi jot bi ñu am ak jotaay bii ma ne naa wax lenn ci xale yi wax dëgg fa sant naa leen gërëm naa leen judd nañ fañ war a juddoo magge fiñ wara magge waye bax waaye fiñ wara bax ñu fi nga tok ni la tok su fi muy fekk may nelaw mu yema fi mm-hmm. waxtana man waxtaan bu baax ci yàlla ba nopi yëkkati 80000 francs. 80000 tek ko suma loxo daane mo ak aasi mii ñoo dajale seen deureum ak seen ñaan deureum ci bourse bi nga xam ci ni moom la ñuy amagu su néew. ngir jàppalee ma ko ci koor loolu nag nekk loo xam ne jéem naa cee kaf-kaf waaye tëdd naa guddi ba sonn moom ma seen nelaw mu nekk lu ma touché xaalis bi ma touché waaye yëg bi ñu am xalaat bi ñu am ak yërmande gi ñu am ci seen bàyyi ba def ko moo ma touché ndax umpale woonu ñun ñi manqué wuñ daal waxuma la man li may def si ñoom waaye yow rek li nga leen defal doy waaye nag buñ defee loolu du ma bett ndax kewel bu tëbee doom ji bët ndaa ñàkk fayda li ñuy def nii yëpp li way ka banaan affaire bi ndax yow itam bu baax nga fa nga war a baaxe xam naa la ma la waree xam ba ma lay xam ñëpp dañ ne woon kii bu dugg ci moom loolu tiimate yàlla tax ngay jàng sofi mi bi muy judd yaa ngi def terminal ñëpp na njàng ma yàqu waye nga nek jigen ju bax jigen ju deugal li jënd ko ba am bakki ak mom muy ñaari ba ñu tax as asimi aasimi judd nga nek sa liggey nag kër gi ñepp dañu japp ni lepp may def waye li nga def ëpp li seen nday def ci kër gi mo ëpp fofu li may def di bay rek wax mom bu jotee lañ wax rek wax mom bu lañ wax rek ma bi sédel ni bo leen bëggee nek jigen ju bax ëlëk bu leen dugg fenn wut roy waay roy waay baa ngi nii boo bëggee sëy sëy bu jub ëllëg bu wut fenn roy waay roy waay baa ngi nii nag sant naa leen bu baax a baax gërëm naa leen waaye yow tamit gërëm naa leen jërëjëf maman. ah sama xol day wax nga fi wax ju rafet macha allah te xale yi tamit def nañ bu rafet a rafet a rafet. Hmm? suma xalaat ne seen xel egg na foofu waaye may dellu di leen sant di leen gërëm ko ci seen bàyyi ndax kat danga yor fan ma war a yoree teral ma sagal ma muñal ma suturaal ma kenn xamaluma dara nag te bu la neexoon nga ne sama jabar du dem di liggéey sama jabar du yéeg avion di wàcc hmm. mais defoo ci defoo loolu yëpp damay dem du ma toog maa raw voyageur fu nekk laay dugg loolu yépp nag nga toog di ko xaar di ko muñ kon tey samay doom suñ melee nii c'est grâce à seen baay ma lay sant nag di la gërëm ndax tey su ma dee woon directement àjjana laa jëm. yàlla waaye tey nag kontaan naa ci Sophie ak Asi seen ci rafet na waaye nee nañ barke soo ko bëggee. danga koy saako ci mbaay. am nañ ko de. na leen leer ni nag sama xol seetlu na kuy ci yéen. di saxaar rek waaye doo leen mës tàkk ndax man mii di seen lay de ñaanal naa leen ndax seen baay ñaanal na ma kon su ma leen ñaanalee bomb rek lay doon buum lay def ñu jaay kontaan naa de wax sax mënatuma ko ndax sama xol bi dafa seet ci xale yi. man de sama xol seen wax dëgg yàlla. macha allah yàlla leen cat seetlu yàlla ci seytaane dugg ay yaay waroo leen woon a wax sax ma ciy teg kàddu ndax loolu du yàlla waaye dafa fekk ni pap nit amul lu dul ay waajuram luñ leen defaral rek mënoo mënuñu leen koo fay rawatina nag yaay moom mi ñu am juróom-ñetti weer benn bés ñëw xaw kaaray kon nag lu lépp lu ñu mën a def rek suñu yéene la rek ah si su fi nga baal ma rek comme ni ma ko waxee sànq ndax xam naa ni kër gi maa fi gën a ndaw may jàll kon ñëpp waruñoo wax man tamit ma ciy teg waaye ñii luñ leen defaral rek xeeb nañ ko yéen jàpp leen lu ñu deful ci yéen rek dañ koo amul waaye suñu yéene sut na fii yépp di leen sàkk di sàkku ci yéen ñaan ndax bëgg nañ incha allah déwén. ngeen dem ziyaara ji ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen fa demee ba ñëw nag ah bëgg nañ ngeen dem Maroc ziyaara ji ki nga xam ni moom lañu bokk mooy Cheikh Cheikh na Tidiane ndax da ngeen a nekk ay taalibe borom daara ji mu sax ci xol yi lool kon lu ñu leen defaral rek xeeb nañu ko ngeen yokk gën a yokk ñaan yi. macha leen wax gis ngeen seen baay kenn du ko fa jiitu di len gëna a ñaaxaat nag ngeen fonk waxtu julli da li ngeen def ni contant na ci torop ndax jigeen day takk sëram ba mu dëgër waru ñee benn goor lepp lu mu am daf ka wara a doylu da ngeen goor goor lu nag ci koor gi fexe ba di soñu jot li ngeen def ni mom contant na ci macha allah da ngeen fexe ba bu ci dara changé. moom mooy loolu muuti mu rey ma benn yoon. nga dee. dafa ndaw sama xol bi seet na di ma ma woo ko téléphone rek ne ko ne yow tey. bëgg naa ñaanal yàlla gudd fan rek. waaw kon jox leen ma ci ana kon jox leen ma ci. Ah? ah moom kay woo mawti rek wala ngeen jox ma ma lekk. ah déet mawti moom déet. Ah, kon indi leen ma lekk. Sénégal ñoo fi dàq papa yi. kër gi neex indi añ bi ñu añ. entrée eh, entrée. heure bi kooku baax doo la de heure bu añ. asalaamaaleykum.

compte bidon baal daam compte bidon compte bidon compte bidon compte bidon compte bidon compte bidon voilà justement dimbare kana waaye ngeen lu ne ngi ci. café lu ne ngi ci. dama waaw man du ma sa morom. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. xaw ma compter bidon. Mm-hmm. ma compter ñaq. yaa ngi dégg. daam sa solin gii nga sol. ak kii nga àndal nii ko yaayam gaañu. waa ngi Sénégal. dama doon maa doon lool waaw wala defal yee. sa colin gii uh-huh. sa dal wii mm-hmm. sa cantewaay gii tufli gii mm-hmm. kii nga àndal nii mel ni yaam daa gaaw yi lop toogal ah. li nga ci moom maa ko def ci man la ma feeñu ba ma teg dangaa la ma feeñu ba ma teg gi ci suuf moo ko corfati ba àll buy buy buy xataraayu ci eh, ku ku ma toon di jëm ci man tax buy xataraayu du ko tey dalal dalal dalal istikramana bisa aja aja eh, sit down Ramke ji kab gele de Allah. Rabbi. Şöyle Allah. Amor. Hamran indi an. Ya poni wo mawte gan ina andi. Ma de den wa. Bëggon na de sa fay. Ki ki mel woni de. Ko karam gi kita da ka ber. ful bëg. Bu full full full. Wah Ful ful. Wax nga dëkk. mo. Dah, eh? damaa xiif mbëbug laa déparé ca fajar ma wàccoon dëkk bu ñuy wax Bàqaya ja di fa tortoon sama wëllëru dinaa fekk abu ja borom kër gi léegi ñun papa Ya, dañuy wax léegi yow la boo ma toppee leen nga comprendre mbir mi bidon rek de. bidon rek. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa

لك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن صوم وطاعة للرحمن روحانية يومك غير والوعد باب الريان والليالي فيها الخير يا هلا بك يا رمضان يا هلا